affaire bi ñun ñëpp la touché ñetti coupe moom ñu indil ma ko sama bureau musul am ñetti coupe moom ñu dajaleel ma indil loo ma musul am loolu moo tax boobu ba léegi may forcé pour ñu def ko ci activité bu mag waa Medina fekkee te la yëpp toog mbooloo mi yëpp ki kilifa fay toog ñoo leen seen équipe ba ngoog seen i doom a ngoog expliqué waa Medina pour fu ñu déggati Aigle football ko ne mën a dagg sa billet fekki leen. grand nag yaakaar naa ne mairie bi moom dina def rôle am incha mais man grand 2 millions man yow dama la koy jàppale man at ah, maa ngi ko jàppale waat ko mu Yeah.